ñiy yëngu ci wàllu defar lal ñi gën leen xam ci ay menuisier ay jafe-jafe dong la ñu làmbool ndaxte ceeraayu bant bi nga xamante ni moom la ñuy jëfandikoo. xam bant yi am na jafe-jafe contreplaqué am na jafe-jafe lépp daal dafa yéeg wax dëgg yàlla jibuti bi tamit kenn du ko laal xam naa daal ni ñu bant yi tolloon wàññeekuwul daa yokk fu mu nekk nii mu ngi ci six cent soixante mille. six koy jaay ba si sept cent mille lañ koy jaay. fi mu toll nii moom liggéey moom boo ko engagé pour nga génn ci moom lu jafe lay doon. matériel bu cher. leneen li ñuy jànkonteel moom moo di meuble yi nga xamante ni moo bàyyeekoo bitim réew. ba ñoom seen i meuble mënatu dox ci na mu waree. ay anam yu bëri ñu koy kaas moom vraiment la fabrication kii bi jóge extérieur sonal lañ trop non seulement que def nañ ay démarches donc ci sensibiliser wax leen mais loolu lépp état moom moo ci a dimbali quoi. bagage yi moom metti na wax dëgg yàlla wax dëgg bagage yi metti na li ñuy importer sa waay gàllankoor na gars bu fekkoonte ne dañuy choisir lii dugg si sax amul problème mais lu nekk ay dugg si ma ne ko ci ku am sa mbalit rek ñëw dugal waaw. nguur gi jëloon dogal ni fukk ak juróom benn ci téeméer boo jël ci meuble yi ñuy jëfandikoo dañu koy jox fabrication locale ñuy xamle ni ba tey. Fouras. bu mu commencé xam nga le ministre ki daf ñu joxoon mu ñu créé association menuisier yi def nañ association bu mag bon à chaque jour ñu ngi réunion rek ministre mais jusqu'à présent ba ak léegi waxuma pour cent mais 1 pour cent ko ci commande publique franchement. ñoom ñi lay bokk ci secteur informel di xamle ni seenu liggéey jafe na mu dox ndaxte seeraayu bois bi waaye itam jafe-jafe yi nga xamante ni lii di meuble importé yi mi ngi leen koy teg rawatina seetaan gi nga xamante ni nguur gi mi ngi leen koy seetaan.